alaikum. Euh, Lamine Diop la président association tailleur de Kaffrine. voilà Lamine euh, nga nekk président association. l'association depuis ñaata at. bon ñu ngi si euh, maa ngi suma ans parce que c'est mon premier mandat bi 2 ans la woon après ñu renouvelé mandat bi mandat bi ñu ko renouveler léegi bon amagul sax un an. mun naa wax mun naa daal comme trois ans parce que trois ans yi manqué na ay deux mois. te naka nga jàngatee association boobu. waaw association bi sant yàlla parce que euh, man nag yàlla dogal na bi ma ciy jot euh, association bi def na vingt sept ans xawoon am benn euh, tar tardement bu xaw a bu xawoon yéeme am ay manquement yu bëree bëri mais yàlla dogal na nag ci kattanam. bi ma ko ak legui amna ay avancement yu baax a baax a euh a ñu ngi siy commencé gis seen bop bu baax a baax mu ngi leen di amal njëriñ macha allah. question boobu naka ngeen ko falé ak euh, fu mu toll. waaw association bi nak euh, yàlla dogal na depuis 27 ans yi nga xamne mu ngi fii si Kaffrine mosul am euh, élection dañ doon def par consensus rek lañ ko doon mhm. euh ñetti président jaar nañ fi. ba yëpp par consensus lañ leen fal ba yàlla dogal la nag man kese lañ si fal par élection mhm. bi ma falee ak léegi nag ñaari suma ñaari mandat yëpp par élection la mhm. yàlla dogal ma am ñu nga xamante ne dama koy jongante ak ñoom ñuy sama ay yeneen naataango may yàlla di ma dénk ndam li di ma ko may mhm. ma ma jël ko jiite association bi ñaari at yi ñaari mandat yi daal mooy mandat yu nga xamante ni moom par élection lañ ko élire. muy ci des yëpp consensus lañ doon demee. depuis ñu la dénkee li nga xamante ne mooy association bu léegi yow yan coppite nga ci def. waaw bari na mun naa wax bari na macha allah parce que man ñun bi ñuy jël euh, association bi mun naa wax ñun parce que du man kenn man maay liggéey man la ak suma staff. Hmm. yàlla dogal na bi ñu koy dénk dañu fekk keesu association bi. xaalis dara nekk ci yàlla dogal ñu liggéey ci deux ans am as tuut loo xam ne def nañ ko fa ñu dem ci wàllu matériel association bi mm-hmm. bi ñu demee suñu deux ans yi yàlla dogal nañu am matériel boo xam ne xaw na takk tuuti boo xam ne association bi moo ko moom loolu mooy ñaar ñetteel bi li nga xam ne moom moo ma si gënoon yitteel moom mooy euh, renforcement de capacité yi muy euh, formation yàlla dogal na ci deux ans yi presque am nañ si ay deux cent cinquante et quelques personnes yi nga xam ne formé nañ leen euh, ci suñu ci sunu régime laa koy waxee mooy euh, ci diggante ñaari at yi nga xam ne dénk nañ ma association bi man ak suma staff mu siy liggéey. Mm-hmm. beneen bi mooy euh, am nañ fa ay projets yu nga xamante nii liggéey nañ ak projet yi. Mm-hmm. projets yi gagné nañ ci ay formation gagné nañ si ay matériel mm-hmm. parce que gagné nañ fi matériel bu nga xamante ne Euh, toll na ci cent un personnes yi nga xam ne kenn ku nekk am nga une valeur de un million. Mm-hmm. ci deux ans yi lañ ko liggéey. Mm-hmm. kon macha allah sant yàlla loolu daal mooy li nga xam ne jot nañ ko fay defagum en attendant te bëgg mu yokk ba ànd ak kattanu yàlla. Eh, tey si seen biir association képp koo xamante ne dafa bugg a ñëw bokk si. Mm-hmm. nga nekk ouvrier naka lay demee. waaw ouvrier bi nga xam ne dafa bëgg bokk si association bi da ngay nekk membre nekk membre li la koy tax nga nekk membre mooy da am carte bi. muy carte association tailleur soo amee carte de membre bi ba pare bokk si nag boole si nag di ñëw réunion soo amee carte de membre ba pare di ñëw réunion loolu moom moo si boole su ko defee bu ëllëgee lépp loo xamante ne nii euh, lu war a ñëw la ci association bi rek bu ñëwee yow ak ñun ñun ñoo koy bokk mais fekk amoo carte de membre bi doo mën a bokk ci association bi dañuy gis souvent am ñoo xamante dañ naan ñoom ci mbir mi mais ñoom souvent duñ ñëw réunion duñ ñëw ci dara bu dara lu bu mel ni wala lenn rek ñu taxaw ne dañuy fekk ñu carte est-ce que danañ mën a bokk non non ñooñu duñ mën parce que euh, boo wax mandat élection. élection trois présidents euh, pardon quatre présidents sax quatre présidents jaar nañ fa man maay cinquième quatre présidents yi fi jaar yëpp amul woon élection mhm. yëpp par consensus la mhm. man maay cinquième président bi bon yàlla dogee man suma suma premier mandat élection la parce que président bi nga xam ne président sortant bi moom dafa organiser ay élection mhm. ñu ne au lieu de ñuy def consensus nañ dem élection parce que man nañ quatre candidats quatre candidats election. nañ dem élection ñu dugg si théorie campagne jaay ay carte de membre biñ élection ma jël élec ma ma gagné yi. Mhm. bon bi ma commencé suma mandat deuxième mandat bi. Mhm. ba ci dernier mandat boobu sax xawoon na am problème parce que foofu foog ma taxaw fa leeral fa tuuti. Mhm. premier mandat bi bi ñu demee ba war a dem élection nga xam ne suma mandat jeex na ñu war a dem élection. tailleur yi nga xamante ne nii ñoom gëmuñu woon association parce que association def na vingt sept ans. wax naa la ko léegi suma njëlbeen wax def na vingt sept ans amulul tailleur yi benn njëriñ. mën naa wax. du dara du du formation du ay projet du dara lu nga xamante ne ni am nañ ko. Mhm. man nag bi ma ñëwee yàlla dogal loolu commencé.